toujours dans votre acte du jour dañuy dem ci benen point bo xamanteni ki di Juan Branco ku nek xamnako mu bokkoon ci pôle d'avocat Ousmane Sonko yi don défendre dossier mak Mame Mbaye mu mel ni dof di saga sénégalais yi di dugg ci lu nekk te musul plein de benn yoon dossier boobu ñëwoon fii ba nga xamante ne dañ ko lancé woon mandat d'arrêt international ñu jàppee ko fii ci waxu Mauritanie yi ginnaaw bi ko Interpol jàppee ñu jébal ko justice sénégalaise ñu tegaat ko tout contrôle judiciaire ginnaaw juge bi bu mu waxtaaneeg doyen des juges bi nekk France que ça yu ko soxlaa kii di Juan Branco mën na ñëwaat Sénégal ñu atte ko Juan Branco nag moo tweeté démb benn tweet boo xamante ni vidéo baa ngi noonu ñu koy kokkali ci euh, réseaux sociaux yi nañu xool vidéo boobu kon yaakaar ni ñoo seeraandoo vidéo boobu nga xamante ni kii di Juan Branco nga xamante ni Twitter am lan la fa nekkee woon saaga président de la République du Sénégal son excellence Macky Sall saaga institution sénégalais yi dénigré Sénégal ba ne day yóbbu cour pénal international kii nga xamante ni moom mooy euh, l'état du Sénégal par rapport ak li jot xew ci dëkk bi yëpp te ñoom gisuñu benn yoon jombe bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko Juan Branco je crois que moo def marche arrière Juan Branco nee na tey entamé nañuy bépp démarche boo xamante ni pour ay négociation si situation pour politique bi nga xamante mi am Sénégal situation boo xamante dafa am Sénégal pour jàppale que Sénégal amul benn situation politique bu dangereux kuy politicien n'est que sa waar yaa ngi ci sa savoir, ku wàcc sa waar yoon technologie donc je crois que tey gatchela la tey si ñoom gàcce la ci pôle Ousmane Sonko et plus particulièrement qui nga xamante ni maître Clé Sirodor li bi nga xamante ni na Ousmane Sonko après 30 jours de grève de la faim la situation devient alarmante donc ce qui veut dire que mettre maître Clé actuellement il fait la honte de la robe noire ici

law amul dossier boo xamante mettre maître Clédor Ciré Ly traité wu ko fii ci Sénégal muy dans la sous-région et au niveau international tey un simple Ousmane Sonko tax nañu ridiculiser seen bopp wàccee seen bopp ba nga xamante ni fàtte nañu droit fàtte nañu justice fàtte nañu loi bu ñu jàngoon donc je crois que tey avocat Ousmane Sonko yi nga xamante ni dañu perte seen plaidoirie yëpp dañu perte seen procès yëpp yi nga xamante ni amoon nañ ko Ousmane Sonko jëlewuñu ci benn ndam tey ñoom ñoo transformé en tant que porte-parole de Ousmane Sonko ñenn ñi nekk ci ay porte euh, presse ku ci mel Juan Branco moom mooy géwalu Ousmane Sonko qui était le maître de lui moom moi communicateur traditionnel ab daab ko di ji situation dafa alarmante te maître Clédor Ly su waxee ci aqulaay taalaam wax ci askanu Sénégal xam na Ousmane Sonko deful grève de la faim Ousmane Sonko soins yu mu depuis le 17 août Ousmane Sonko accepté na soins yooyu ba ñu sampal ko ay perfusion Ousmane Sonko mi ngi mingi mi ngi ndékki mi ngi Ousmane Sonko montagne déclare grève de la faim Ousmane Sonko musul def grève de la faim je vous ai défié vous tous des gens qui ci yéen ku de taxaw weddi li wax wala dem porter plainte contre diffamation donc je crois qu'il est temps que vous respectez le peuple sénégalais car vous nous avez assez menti vous nous avez assez menti et les sénégalais en ont marre de vos mensonges et de vos manipulations donc Juan Branco tey su entamé une ay négociations kan négocier Ousmane Sonko kenn mënul négocier ak il a été inculpé par la justice il faut que vous laissiez la justice tranche donc mun leen xex ben justice bo xamanteni ne tout tay justice bobu bëgg a ci yoon yeen ngeen bëgg a rendre cette justice indépendante on ne peut pas vouloir le pour et le contre arrêtez votre manipulation sénégalais yeen lay waxal askanu Sénégal donc xam ngeen ñi doon wax dembu tay ñi def ay marche arrière di weddi seen bopp amuñu argument amuñu fuñu taxaw xam nañu ils ont tort sur toute la longueur d'onde Ousmane Sonko tous les Sénégalais savent que Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde tous les Africains savent que Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde euh, les grandes ONG internationales l'Union africaine l'Union Union européenne l'ONU, ONU avons ñëpp xam Ousmane Sonko a tort sur toute la longueur d'onde Sénégal un état la république la dafa a institution institutions yu forte yu ko lal institutions yooyu nag moo fi jiitu suñuy maam jiitu ñu fi. Ce dañuy dem bayiko bail fi suñuy doom fekk ko fi dem bayiko fi kon donc le Sénégal restera toujours une république forte avec des institutions de base donc je crois que Juan Branco tayli Moudef la sortie de maître Clédor de disant que la situation de Ousmane Sonko est alarmante c'est pas à toi de le dire laisse à son médecin personnel de le dire laisse à ses militants et sympathisants de le dire tu as été un avocat pour le défendre sur son dossier contre Mame il a été condamné tu as été là pour défendre son dossier contre Adji il a été condamné à deux ans de prison ferme Contre maître de demal nga wuti ji benen procès ak benen client booy défendre Ousmane Sonko su amone jom yeen ñëpp lay dakk ci biti ndaxte amulu leen ko benn njëriñ buzz ngeen doon wut ci mom tour ngeen doon wut ci mom pour exister et vous continuez toujours à exister donc muy benen point bo xamanteni loolu lañ ko ci sen acte du jour. <laughs> toujours dans votre acte du jour am na ñoo xamante ñi ngi lam-laame nga leader du Pastef Ousmane Sonko Madame, il n'est pas éligible il n'est plus candidat en 2024 donc dañ ko retirer le ci liste électorale Nous, li ko waral dañ ko condamné à deux ans de prison ferme par max pour corruption à la jeunesse ginnaaw bi nga xamante ni Adji Raby porté woon plainte masseuse bobo pour viol juge bi qualifié feewu viol yooyu ne moom mënul prouver ni que viol amna, mais lenn n'est pas ko prouver ci vidéo yi nga vidéo qui sukkandiku na ko di Ousmane Sonko demoon fofu suite boti japp ay xalé yu ndaw di len leen goudé ak bëccëg suba ngoon ci kaw pouvoiram dan nañ ko ci par contumace parce que biñ koy àttee Ousmane Sonko nekk foon té loi dafa am lu mu wax ci mak ginnaw lolu su amé suñ la notifier ce jugement ci bir fukki fan yi suñu la démé jëli ji jàpp la jàppale ni que dañuy anéantir verdict boobu maanaam dañuy reprendre at procès bi su dee yow ci sa bopp dem nga nga constitué wu ji prisonnier nga xamal ni que maa ngi nii kat accident jàppaleen ma dañuy anéantir décision boobu maanaam dañ lay attewaat loolu yëpp amul ginnaaw Ousmane Sonko boobu ba tey toog na demul. Yon aussi état du Sénégal justice bi demuñu ko jappé ji ginnaw lolu notification bi ëpp na du jour donc la condamnation est définitive Qui di Ismaël Madior Fall di ministre de la justice je crois que moy ministre tutelle bi nga xamanteni mo yor justice kon yaakaar naa ni kooku lu mu wax ci lolu lañu ñu war a kon gis ngeen entretien bi nga xamanteni ni am na ko ak wa Jeune Afrique gis ngeen lu mu wax ci condamnation Ousmane Sonko bobu ñu traduire leen ko à une petite vidéo sans son mais uniquement avec des lectures xol leen ñu ñëwaat kon c'est un ni ñoo vidéo bobu nga xamanteni ki di ministre de la justice confirmé la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison pour Contumax jugé par Contumax pour corruption à la jeunesse cette condamnation est définitive. Qu'on que actuellement Ousmane Sonko est en train de purger une peine de deux ans de prison pour corruption à la jeunesse en attendant benn jugement du côté ci fekk muy sept chefs d'inculpation yi nga xamante ni moom lañ ko jàppee yóbbu ko foofu ca maison correctionnelle bu Sébikotane kon tey képp koo xamante ni mi ngi taxaw ci plateau yi wala taxaw bokk ci seen ex parti boobu nga xamante ni tas nañ ko dinaan Ousmane Sonko mooy seen candidat mooy seen unique candidat je crois que ay mag yu jaaxaan di saw la di tuur ndox Ousmane Sonko xam ngeen ni bokkul bokkaatul kii nga xamante ni ci yéen la bokk muy jàll Diop Euh, docteur Diallo Diop bu mu leen ne na ngeen wut plan B yeen ci seen bopp yéen ngi dingante seen bopp dafa mel ni yéen tudul Ousmane Sonko mënu leen dem donc Pastef bi ngeen doon naan projet la donc du projet comme je vous l'ai dit finalement existé tuwul ndaxte Pastef du woon parti politique c'était un mouvement de terroristes et mouvement de terroristes suñu gis fu muy amee candidat boo xamante ne day participer si ay élections donc wax dañ koy wax muy dëgg muy leer nañ ci bopp askan bi ñëpp xamandoo ko noppalu benn yoon ñu fàttee Ousmane Sonko mu purger penam beneen président wala Macky Sall balaa muy jeex neexal su dee daf koy gracier wala mais le développement du Sénégal et le Sénégal continuera toujours à être une république avec des institutions fortes et stables